gisul ci Sénégal nit ku gën a intègre le président Amadou Ba. ah oui nañu gisuma ci Sénégal intégrité am na ñu koy remettre en cause. en tout temps non xam nga tey àdduna moom. ñoo xam ne ñoom la doon liggéeyal. non xam nga tey àdduna moo demee noonu Mamadou Awa. Mhm. amul ku yàlla bind. même yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk sax intégrité am des fois. ah les certains prophètes. amul unanimité amul unanimité loolu mënut a nekk. Mm. mais man dam waxuma la nii wax man dama lay wax koo xam ne ne il a vécu avec lui des gens yoo xam ne dañoo dund liggéey yeewu waaye waxuma koo xam ne dangay dégg ci télé bi dégg naa on ma nekkuma ci logique boobu dépassé naa ko le président Amadou Abdoulaye ñaan bi nga xam ne ñun on on le connaît très bien. Mm-hmm. Abdoulaye Niane du wax lu mu gëmut Abdoulaye ñaan du wax ci nit lu lu mu xamut. nit la boo xam ne il est intègre gëm na ay lu muy wax moom il a la le le monsieur pendant le président Amadou euh, Amadou Ba pendant des années. Mhm. moom moo nañu ne Sénégal fi mu toll nii ñi jëm 2024 phase de transition la yàlla mënu fi woon teg li gën Amadou Ba parce que am na xam-xam bi. Mhm. am na vision bi waaye am na ouverture d'esprit bi. lan lan ba pare li ci gën am solo ci Amadou Ba. nitu jàmm la. te réew bu fekkee ne dafa am fu mu fu mu jëm. fu mu mhm. jógee am fu mu war a jëm dafa am ay profil yoo xam ne ne dañ koy soxla. Sénégal jamono jii. d'accord soxlawul kenn ku dul la président. Mais qu'est-ce